tey maa ngi liggéey ñoom dañoo bëgg a liggéey te ku bëgg a liggéey loolu ci jom la bokk ci bëgg sa bopp ci bëgg a faj gàcce la bokk kon nañ waat loolu xel rek na état bi bàyyi xel mbër yi buñ leen jàppee ay illettré am na ñuy ñëw de am na xale yuy changé loo gis day changé dañuy avancé petit à petit affaire yi di am changement affaire yaa ngi changé nañ bàyyi xel xale yi xale yi mbër yi dofuñu de ñu doon wax naan la ak mbër yi léegi dof de nañ leen bàyyi xel nañ jàppale làmb ji buñ ko jàppalee làmb mën na am lu bëri làmb lu mu mën a def ci réew mi bari na ay nit a ngi ci ci réew mi yoo xam làmb mën da leen di fay ay nit a ngi ci réew mi ñoo xam ne seen feebar làmb koy faj nit a am stress toog seetaan làmb wér président de la république bu làmb amee da koy seetaan moo gouvernement am ñoom ñëpp dañuy seetaan kon nañ jàppale làmb. Paa Garga Mbossé Boy Niang bi nga xamante ne dañ ne du Pape Abdou bi mu ne du ko def direct moom président bokk na ci ñi ko. moo ko jë moo ko maye woon. te daa tombé woon ak élection xaw ma da ko doon campagne xaw ma buñ ñu jàppee bu ñu def affaire politique nañ ñu jàppale. mais Boy Niang numéro 2 am na ndam Boy Niang numéro 2 am na ndam ci woote boo xamante ni ëllëg incha allah dinañ ko nettali ay sëtam. l'histoire retiendra que Boy Niang moo dajale woon mbër yi dafa def li ko war dafa def rôle am Boy Niang géwél la boo dee géwél da ngay dajale xam naa dinañ ma ŋàbbati dinañ ma waxati ay wax mais lii mu def nii moo ko war man ci sama domaine tey buñ toogoon presse bi coow ñëpp ñëw ñu toog ñu waxtaan lii moo ko war bu affaire yi toogee dëgër na wootee nit ñi ñëw parce que lu mu bon bon tamit am na benn capacité intellectuelle bu nekk ci moom boo xamante ne nekkul ci yeneen gars yi nañ koy bàyyi xel macha allah fi si te waxee dafa am solo wax na ba xolom tàng parce que dafa bëgg moom waxul jéggi na làmb la jeunesse sénégalaise lay waxal kon nañ ñu bàyyiwaat xel président de la république parce que ba xol bi jeex na quoi. moo jooy boo moo jooy la. <laughs>